monsieur le maire naka yow. yow gaa ngi sant yàlla bu monsieur ree. non réew ma dara. Ah. xaw ma ni mën nga toog ñetti fan rek te doo te doo ñëw. tegu ma ko fenn de. Ah. ko fenn de. Hmm? waaye nag bon. situation baax te couleur bi nga indaale itam dafa ma xaw a ragal. beige nga dem dugg <laughs> euh, euh, euh, dugg xalwa génn génn ak mborog <laughs> léegi nag loolu aussi yow it bu dee dañ laa woo wala dañ lay waaj woo. comme que woote dafa xew. kenn woo ma. Ah? kenn woo ma. ànd ak pas ànd ak Pastef gëm sa bopp rek. Pastef gëm sa bopp. non ànd ak Pastef gëm sa bopp. gëm sa bopp waaw. ànd ak Pastef gëm sa bopp. jël réew noonu pourtant noonu laa ko defee. ah non defee woon. ànd ak Pastef gëm sa bopp jël réew non non non mais boo ko defee woon noonu kay ni nga solee nii doon ni ko solee. ni ma ko defe nii. ah Ah, man de dañ maa tànnal couleur jox ma ne ma tey nii ngay demee. ki la ko tànnal ki la ko tànnal la ko tànnal de. damaa moom sam bopp. Ah, xoolal lii rek. dama ne lii bi ngay sol dama. te bañ nañ bay bëgg dee télé bi lu ne def def nañ bële xoolal sa ginnaaw xoolal bële bi. <laughs> gis naa ko bii. <laughs> man la xoolal bële bi. xoolal xoolal sama ginnaaw. rouge. ah xoolal lii traversé. ndax dañ fay gis mu roog bi di dem. xoolal lii sama ginnaaw ndax da fi gis mburoog soxla xam nga man dama lay namm mais eh, te dama lulus <laughs> xam nga. nuyu naa la ah, di nga leen naa leen benn cité fi am. muy cité gox boobu ana ana kii euh, euh, madame la xaw ma nu mu tuddati. Almadi 2. madame madame Fall. madame Fall bu ndaw bi nu tuddati. RCD. ah déet fan la dem Ibrahima Bari. fan la dem Kolda wala parti bi de foofu rek la ak Tëngéej. RCD RCD wër àdduna. RCD wër àdduna. RCD wër àdduna. Ah, du yéen a yore seen bopp xam ngeen cet moom daa mel ni cet da da leen a seexlu waaye baax na rek. mitig la. baax na rek. ànd ak Pastef gëm sa bopp. ba école moo tiim école ban la bii tiim. gërëm monsieur le maire. école bu ñu tudd. damay laajte rek damay xool tey la ubbi te école. Khadija Maye Koor Diouf maa ngi lay nuyu. doomu Serif Diop ak Kodou Diop. Khadija Maye Koor Diouf. doomu Serif Diop doyen ak Kodou Diop maa ngi lay nuyu. jaajëf yaa ngi tax ñu naan Mame Mbaye da ngaa transhumé waa Sen TV l'officiel. dem nga bu yàgg. tey damaa bëgg ngeen yóbbu ma ba mille cinq cent. waaye mu le lii nga lii nga soldé tey doo yegg 1500. tey. défiré la fi yóbbu leen ma ba a ngeen xam ne man ak yéen ñoo faat. fan la ñu TV la fu ñu toll nii ñoo ngi ci 475. Ah! tey tey de boo amee 1000 sax bu yóbboo nga daw ba dee. tey mburu ak sokola ji. wala MD Guinée. Vox Populi ñëw ak ñun monsieur le maire ci. ay ayca. bilan police la. ci ñi mu teg loxo. Mhm. junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar. Mm. ci ñoo xam ne dañ doon màngaani ak ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ñoo leen doon yóbbu ay convoyeur lañ. teg nañ leen loxo ci weeru octobre. Espagne lañ doon dem Espagne. ñu ngi leen jàppee diggante Soumbédioune Bargny. Rufisque Mbour ak Saint-Louis. ah Tëngéej am na ci wàll. ah Tëngéej am na ci wàll. waaw ba ñun bi yoon tudduñ ñu. Géejawaay bokk ci déedéet déedéet. Géejawaay ñoom ñi nga xam ne bës Sénégal yéen ñoo ko jël. non non du du ñun de yoon day dëgg dëgg bokk ñu. bokk leen ñun suñ géej gi du géeju caaxaan di géej géej <laughs> gaynde yi gagné nañu Guinée Bissau. mooy kon gagné nañ de. ah c' est ah. bien dégg nga loolu. baax na. ubbi télécole baa ngi nii. tay la. ba nag fi mu nekk nii la. ah. monsieur le maire. Hmm. monsieur le maire. monsieur le maire. monsieur le maire. ah, ah. ba sax xeet yi jeex na. Ah. abri provisoire. waaye yow statut chef de l' opposition bi nag mat sa baa ngi nii Sonko Karim Wade léegi fi mu nekk moo kan moo euh, moo nekk chef de l'opposition. terminé yéen a kaay Moussa Lamère ñëw ak ñun ci gis nga agressé. Mhm. dellu si waat nañ de Ndakaaru Njaageel Diop. lu ëpp ñeenti junni ci ay doomu aadama police teg nañ leen lox agressé waaw. terminé yéen kaay nag ñëw ak ñun ci diggante cadavre politique ak coquille vide. dem si yàlla ay meddi yoo xam ne dañuy dox nii bokkatuñ de. ak ñoo bëri ñoo xam ne xuus maa ñàpp. xam nga Macky Sall daf ne woon. réduire l'opposition à sa plus simple expression. simple expression. dana nal opposition bi dëbb leen. def leen li moom ba dootuñ deseeti dara. waaye journal bi nee na ko ak ne tournure ni mbir mi mujjee ëlbatiku Macky Sall ay alliés ci boppam le réduire à leur plus simple expression. ana alliés yi. alliés yi a ngi nii toog. <laughs> déggoo ma de Macky Sall pour nal opposition bi dafa gàddaay law Karim. dem na. fàq Khalifa Sall. yóbbu Ardo. déggoo ma de. jël Idrissa Seck wanaas ko phagocyté ko la def da koo da koo dugg ni cancer da koo phagocyté jël ko jox ko conseil économique te gémmiñ gi dégg loolu déglu ma de mhm. léegi nag PDS si nga xam ne ñooñu nit ñi dañ leen a eh, dañ leen a wàccu woon bàyyi leen soxlaatuñu leen 2012 mhm. mu ne coppet jël Omar Sarr Omar Sarr lan la ko mën a indil AFP bu Moustapha Niass xuus maa ñàpp dara desatu ma parti socialiste ba ba ba Sall demee léegi su ko jee bëgg. dara desut fa dara desut mhm. ay ko ngeen dara. dara ma xanaa xamoon ki sal xanaa xamoon ay alliés ci boppam sax la néewal doole fi mu nekk. ay àndandoo waaw. moo tax yéen kaay dee média gi ne ko yow Macky quantité la gënal qualité. ay ko fàtte démb. déggoo ma de mais xoolal lii xoolal lii. kon daal quantité la def bàyyi quantité. oh, oh. yow. Hmm? ay baax na. nañ dem les témoins yéen kaay nañu gis nga ko. ba mu tojee opposition yi ba mu ne rëjëx Macky Sall daal moom tunu moo ne ci biir gaal gi fi mu nekk nii. Hmm? ci wàllum opposition. loolu yéeme na de. yéeme na <laughs> lii lii laa xamul lii lan la. Hmm. dégg nga loolu. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci. ubbital kol bi tey la monsieur le maire. waaw tey la lu ñeenti millions ci ay élèves yoo xam ne danañ dem nag maanaam jàngi. dégg mm-hmm. source a ah, nañu waaw kay deux cent cinquante mm-hmm. seen gaal nga xoolal ca Maroc la ñuy suuxi conseil économique amatul benn carburant ndekete. conseil économique. ama carburant amatu ba. ah mais Ndamal Kajoor dina kànga. amatu ah, le soleil yéene kaay ñëw ak ci. nee nañ nguur gi recruté de. deux cent deux mille neuf loolu de la wax. ubbi tey jàng tey daal bëgg nañ mu doon bàyyi leen foofu rek. réew mi continué nañu xool ko. Barça ak Barzak ji. dégg waaye ma ne lu tollook ñaari téeméer ci ay doomu aadama bokk na ci ay jigéen ñu ëmb. Eh. ak ay bébé. Ah, ci benn fan ñii la jàpp. xoolal lii jigéen ju ëmb ci biir gaal ah, ay yow ma dëkk bii. waaw kay. Ah, les quotidiens yéen kaay monsieur mm-hmm. xoolal. Macky Sall société africaine de raffinage. saa waaw. dàq na sëriñ boobu ma fa nekkoon. ku mu teg. xanaa euh, euh, euh, madame Marème Ndoye. déclaré borom tagal la andi. Ah. ma ne borom tagal la andi. waaw borom tagal la indi de borom musóor. jëlee na fa borom. mba mba xanaa waxtu gi ba. Mhm. bolok Afrique. profitoo ca moom tamit. indi directeur général adjoint. Momar Sarr la indiwaat. très bien xaadim ba. looloo xew ca Sarr. waaw kay waay. l'observateur ñëw ak ci. conseil des ministres. xam nga conseil des ministres monsieur le maire. c'était comme la rajo. xam nga la rajo c'est c'est un mythe bokkul ak nga xam ne nit ñi dañ lay xam di la gis mythe la mythe. mythe la mais mythe bi amoon conseil des ministres. kumpale woon moo bari. kumpa kumpa mbóot kumpa gi amatul. ah ku ne kay yow compte que man <laughs> yow ma ni. kër gi bëri du gaaw ah, génn lii quotidien ñëw a ci coalition jot na la mm-hmm. moo ko tas Imam Mbaye Niang sax dem na mm-hmm. Aliou Sall ngi ni le maire Guédiawaye te ba muy jàppale école ya àdduna nag ci wàllu njàng mi mbirum xam-xam scientifique gi nee na jogante gi fala gaa yi wala gën a góorgóorlu libération yéen kaay ñëw ñun ci restaurant baa ngi nii mm-hmm. le relais benn waaye daal moo téléphoné gérante bi mm. ne dinaa ñëw teg fa bomb fan ci panique am. relais men relais. gi waaw. ne ko te du Macron day yabaate yabaatelu. relais fa la martu yi woon. ah. martu yi. ah déedéet martu martu yi fële la. yu yu taala <laughs> ah régal. ah waaw waaw déedéet waaw waaw kon damaa. woo kam. xam naa moom régal fi ñu ko tuddee fi doo dem. <laughs> yee. dégg nga réew mi réew mi APR. Hmm? Eh? sëy bi nee na ndey ndey lañ jaay. <laughs> mbaa moom lañ ko joxee war na eh, ah, waaw Thiès. xoolal sëy bi nii. Mimi Touré moom Kaolack. Grand Yoff moom lañ jaay Thiès. gis nga ko nii Thiès gépp Idriss Seck lañ ko jox léegi. waa affaire yi sacrifié nañu. conseil noonu dox na. ah non mais attends. ñu sacrifié am ministre am président conseil eh, économique. ñu ngi réew mi wax dara de. non c'est li ñu wax. nit réew mi ñam na de. waa xoolal léegi ko rek. les échos mhm. tamit moom tey ñëwul nag moom it nag. Mhm. ah oh maître Moussa Diop. Ah, na. loolu de Benno Bokk Yaakaar ak Macky Deme. war na gannaaw ñoom Aji Mbergane Kanouté. <coughs> Ah. ñoom Aji Mbergane Kanouté ñoo bokkoon Macky 2012. ah Mamadou Mamadou Moustapha Diagne. waaw ah, yow. ah mi ngi nii en tout cas daal diggante Aminata ak Mamadou woon. Hmm. tàngoon na de. mu ngi nii de rencontre bi. mu ngi nii Aminata Mbengue Ndiaye. parti socialiste mi ngi nii déedéet bëggul woon Mamadou woon teew Mamadou woon nag wax na lan moo tax mu ne fa. Mamadou Ayda Sow a moo leen mujj àttee. Mamadou woon du may dara de. cey yàlla. la Sénégal waaw waaw. la Sénégal ñëw ak ñun ci Medina Gounass. te mm. Tambacounda. Mm-hmm. gendarme yi daal waa dëkk ba nee nañ gendarme yi ñoo fa def lu ñaaw. Mm. jël ay taalibe sëriñ bi jógee woon tool jàpp leen dajale leen ne leen ku nekk da mbaj sa morom. lan. billaahi. ku def loolu. loolu dafa ku nekk la na mbéj sa bopp. waaw benn doomu Serigne bu mag a mag a mag jarba jarbaatam moo ko doon mbéj. doomu Serigne ñu koy mbéj tamit. jarbaatam ci boppam. moo doon mbéj Serigne. waaw comme man rek ñu ne sama jarbaat na ñëw di ma mbéj. moom mu taxaw ñu koy mbéj. waaw ah, waa ñàkk pexe pexe la mu joxe ay lexam. ah mais attends moo doon doomu xalif bi mer na de. xam ah, na loolu lii kenn mësu koo gis. non jar na ko nag. Ah? jar naka nag jar naka de. waa Médina Gounass nag mere nañu gendarmerie bu gulumbu mere nañ leen torop sax. Hmm. critique yéen kaay monsieur le maire ñëw a ngin si géej gi bato usine yaa ngi tukkil jamono buub nañu lépp yóbbu géejee kaaya covid baa ngi nii ñëw nag ci jamono yi corona ji moom la enquête yéen kaay ñëw direct news ñëw ak ñun ci leaderu parti yi dugg ci gouvernement bi est-ce que gars yi nañ leen topp est-ce que sax est-ce que seeni militant danañ leen topp est-ce que dañ àndaale dara mais journal bi nee na mais yow seen dugg bi ñu dugg ay tuuti ñu leen jege noonu ñoom ñooy am ci teraange. ay lettres yu ndaw lañu. waaye yow ma ni tuuti tuuti tuuti te gis na militant yi léegi xamal lañ jóg tey toppatuñ léegi seen leader yi nii. gumba mm-hmm. lu de. Mm-hmm. gëmm nii rek toppale non. ku wéddi laajal Malick Gakou. c'est révolu. journal bi nee na ca jidda caaro yi kaw ay ñoñam dañu ko yuuxoo caxat caxatee. waaye ana Gakou yow. ne ko demuñu. ko dem. ah déet gisaguma dem gisaguma demam de. MD man li ma doon daa bëri damaa la lu. dégg yéene kaay gi. ana gàkku daa dem. et puis xamala la militant yi xamalu militant yi mënul accepter luñ mënul jàpp. Euh. lan moo tax ñoom ñuy dem di fekki Macky. teew Macky Sall daraam doxul. dundinu askan wi. kaleka koom-koom gi. dëkk bee ngi mittee mittee ba maara day taali mais ñoom. fu ñu jëm. moo tax ci tribune yéene kaay responsable. responsable grand parti bi nekk jidda caaroy kaw. ana lu mu wax. lu mu wax monsieur le maire. lu mu wax. nee na El Hadj Malick Gakou bu ko neexee mu dem. ndax la. na dem. na dem ba mu neex ko. waaw ba kenn laal ko. waaye Malick Gakou mënu leen a def ñoom ay traître di ay ay warkat. ah ok. demuñu. na dem demu boppam opposition bi la ñuy toog. waaw yóbbaalewul kenn. dëkk boo xam ne ñëpp bëgg a. Sall sax boppam sax li mu bëgg moo mënul ne. <laughs> Macky li mu bëgg tam mënul nekk. tamit nii ñëpp dem. mais bu ñëpp demee ci pouvoir mii mii mais. day yéeme nag. ah mais non ma Macky sax kon war na tiit. day yéeme nag. yow loo xam ne yàlla sax amu ko nga bëgg ko am. monsieur le maire dafa woote kii gouvernement élargi. gouvernement élargi mooy lan xanaa Macky moom amul ay nit yu élargi moom. ana ay cadre am. compétence lay wuti ci biti. waaye compétence universitaire yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi borom xam-xam yi fan la koy jëlee. ci ñoo xam ne dañoo yoroon réew mi. waa réew mi ne leen da ngeen a tële dàq leen ñu mel ni ñoom Omar Sarr ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooy compétent yi te sénégalais ne leen vous êtes incompétent ba dàq leen. mu jël andiwaat leen fëgg jaay Macky ñëw recycler leen indiwaat leen. fëgg jaay fëgg jaay waaw loolu mooy compétence. xëy na écolo la rek écologiste la rek écologiste yi faw muy. wax ma man njaab laa njaab tey. <laughs> waa waa seen TV officiel ban njaab la ñuy def tey jii tey jàppan <laughs> non mais damaa jubli. non mais Moussa la <laughs> maire. damaa damaa jubli. leader yi lañ war a wutal. leader yi lañ war a. bu leen doon dara jàppale leen rek. ñoom liñ encaissé déjà rek dafa doy famille tër geex nit ñamagu ñeex. Oh. ñoom ñëpp ñu ngi taxaw liñ encaissé rek dafa doy dimbali leen rek. famille tër gi. te xam naa ne yeneen dana génnaat yeneen signature war na wa daal xam naa moom bu jékki-jékkoon nag mais monsieur le maire bu jékki-jékki gis def nañ ko ministre. conseil. ñun ñun kenn duñu vaar ñun. di xool fi nga bokk tam daf cee baax de. non si la bokk. monsieur le maire. ah olof laa la làkkale di xool fi nga bokk. di bàyyi xel ñi lay xeexal. Ah, ay nit di la xeexal suba ngoon guddeeg bëccëg. mais loolu mooy gore. mais waxuma dara mais ñooñu bu ñu delluwaatee ci seen i grand place lu ñuy def. loolooy gore. ñoo xam ni seen page Facebook barki Dembo Ndiaye lañ ca bindoon. tey nga binduloo leen lu safaanoo ak la nga leen binduloo woon daaw. waaye ñu koy def ñoo ñàkk fayda. ñi may gàcce rek man de barki yu waaye man. ñi may gàcce rek man heureusement sax aw ma leader. ñu nga. heureusement. <laughs> baax na yàlla baax na président président Doudou Wade mu ngi lay nuyu. maa ngi koy fay. waaw président Doudou ma leader ah. man yaay sama leader. man nga nekk sama leader. te gis nga li nga sol nii sax xaw na maa métti xaw ma nan laa lay défendre. non bu subaa dama ko dañ ma koo solloo rek <laughs> dañ ma koo solloo rek. mais xam nga rek <laughs> comprendre <laughs> <laughs> yàlla baax na jaajëfal leen yéen waa Sen TV l'officiel gis ngeen ni ma ko waxee noonu ngeen ko defee euh, presque yéen a ngi ci direct bi xam naa da ngeen maa namoon man ma raw leen lool yéen waa Sen TV ñu ngi nii Alexandre Diédhiou Ibrahima Pouy Alou Wade yow moom moo ngi sa Allemagne euh, Ablaye Ba Jaxeer Gayen bi Sanu Diallo boroom gëm sa bopp sa mbooro ah soo koli euh, Tinam Banjaka Dimen Junior Henri Jaxeer Gayen bi Jarpi bari ngeen lool topp ñu si moom euh, Bolel Fall bari ngeen loolu dañu topp Sen TV l'officiel jaajëfal leen jaajëfal monsieur le maire bu Medina Bamba Fall ak képp nga xam ne yaa ngi ñuy euh, teewlu fajar gu jot ci kanam ma dikk